ñu ngi lay nuyu. fay naa leen. sant bi yaa ñu na de. <laughs> gis nga. <laughs> ngeen ñëw def ko à la traditionnelle. waa dañu ñëw ànd ak Papis Nia bu aar bi management donc mu woote tradition rek fàttaliwaat suñu ay maam donc wax ñu fan la ceebu jën Penda Mbaye jógee ñu delluwaat daal suñu cosaan waaw. qu'est-ce que ça te fait tey nga ñëw gis euh, mbooloo bi yëpp macha allah gisoo fi dara lu moderne traditionnel rek la ñuy def nga nekk maanaam euh, ñi nga ki nga xamante ne euh, yow porteur de voix nga waaye itam ndaw ñi ak mun naa ne génération yu bëri da ngay mën ngaa ànd ak ñoom te tey ji modernité bi dafa bëri tey boo ñëwee gis fi lii ban euh, affection wala ban sentiment ngay am. waaw mais kontaan rek parce que nit ku nekk da nga war a xam sa cosaan te li Papis Niang def nii vraiment defe naa ñu bari waroon nañ ko def ndax waruñu topp topp tubaab yi topp topp ba fàtte li nga xamante ne mooy suñu aada ak suñu cosaan ndax saa existe et dafa am solo donc ça me fait vraiment plaisir que ma ñëw gis ñu delluwaat suñu cosaan def ay cosaan nit ñu bëggee vraiment ñu wane ne Sénégal aar a ngi fi te damay remercier loolu Papis bi nga xamante ni moo am initiative bi. Ah, voilà nga nekk nag ki nga xamante ne da ngay yëngu si série yi macha allah nga joué une femme un mari ah mu mel ni mbir mi doy na waar lool macha allah nga def si buzz ah, nekk si na nit koo xamante ne am nga benn position boo xamante ne jël nga ko ñenn ñi ànd si ñenn ñu ànd si yan retour nga am si boobu les séries. waaw une mari yi waaw waa gis nga joué nañ ko defe naa sénégalais bëgg nañ ko donc ma incarné ci rôle boo xamante ni defe naa ne am na ñu mu neex am na ñu mu neexul mais c'était juste pour ñu yete parce que lu ñu joué rek am na fii. lu ñu joué rek am na